jërëjëf suñu mbokku téléspectateurs yi ci seetaan li TV tey nag dañ leen a dikkal ci bis boo xamante ni tey bis bu rëy rëy la dox ci kan diggante jamteer yi ak kan général bu Malika le champion d'Afrique loolu nag mooy am fii ci arène nationale waaye bis bu spécial la ndax kañ ko turale moo am solo kiñ ko tuddee mooy kan ki nga xamante ni moo yokku làmb ki nga xam ne mooy bëtu askan ki nga xamante moo fekk départ ci téléphone ba tey jii mu ubbi télévision boo xamante ne àdduna yëpp nga koy rafetlu te lépp làmb rek mu fala daje a ah, loolu nag kooku nag il s'appelle Ibrahima Faye di buzz ànd ak xale yi Lutte yëpp ñu bëgg leen a bëggal fii ba vingt heures lépp loo xamante ni xew na ci biir làmb ji ci ruq yi ci toilette yi bi géew bi dara du leen ci romb jërë ngeen jëf. À quelques heures du combat nous le parrain. de cette belle journée, Ibrahim Faye Buzz. Le parrain de cette belle journée de gender production entre Général Marika et Jamteri. Nous allons voir l'ambiance à l'intérieur, comment le parrain prépare sa journée, mais en même temps, comment ses amis lui ont rendu hommage. Les témoignages de ses collaborateurs, de ses amis, de ses membres de la famille, avec Ibrahim Faye Buzz, qui est le parrain de cette très grande journée entre Général Malika xanaa di kontaan rek lu njig njaaga yéen la yéen ñii yéenay borom drapo ndax bu ngeen jàppul woon ci liggéey bi amaanaam yéen Lutte TV du yegg si ba fii kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant te ñu ngi leen di ñaanal lu raw drapeau yàlla defal leen ko ci seen métier bi yal leen yàlla jàppale suturaal leen yokk xéewal yokk euh, euh, teraanga ju bare bare bare bare lépp lu ngeen di def yal na ko yàlla gërëm waaw <laughs> eh waay yéen da ngeen ma jël au dépourvu nag <laughs> bés bi rek xanaa di kontaan rek ni ma koy wax rek di bég rek mais dañuy delloo njukkal Lutte TV waaw yéen ci jàpp ba flambeau bi jëm kanam ba ci kaw loo gis rek say moo koy euh, téye mu dëgër kon nag dañ leen di ñaanal yàlla yàlla gën a dëgëral seen taxawaay barke lépp lu ngeen di def te lépp lu ngeen di liggéey yal na ci lumière yàlla jiitu allahu nuuru samawaati wal ardi jërëjëf jërëjëf xanaa sant yàlla rek julli ci yonent yàlla Muhammad amati mbégte mu rëy ci bés bi nga xamante ni si tey moom la ñu tuddee suma doom eh, damay wax ni nag lu nit di leble ñu lay fay ngay mer la nga leble baaxul bës ku ko dégg ku ko xam te xam fi muy jaar xam jikkoom xam li nga xamante ni moom lay liggéeyal réew mi tey buñ ko bëgg tuddee bés da xam ne mën naa ne bu yàlla dogalee nag tey li mu def mu def ko fii ci réew mi ubbi fii société bu toll ni Lutte TV di ci liggéey liggéey boo am solo jël ay emploi def contribution ci réew mi tey man lam yaskuri naas laa yaskuri laa ku gërëmul ni doo gërëm yàlla tey bu doon benn cinquante personne la wala benn cent personne moom mi ngi def mois bu ne kenn ku ne mu jox la li nga xamante ni si mooy sa ñaq muy société bi mu ubbi tey nag bu yàlla dogalee tey lamb reconnaître ko borom perpervi lamb reconnaître ko ci liggéeyam bu rafet lamb reconnaître ko ci li nga xamante ni si tey moom la liggéeyal Sénégal ba promoteur bi xool ko ba mu neex ko mu jël combat bu bu toll ni diggante jam téeri ak ki nga xamante ni si tey mooy général bu Malika jox ko mooy dafa delloon mbattu ca ndaala kon dañ koy ñaanal rek ci bés bi mu jëm mu sedd guy neex lool valeuré lool parce que valeuré na ba pare nag ndax sama sëriñ ba sëriñ Mansour mu Seydil xaaji Malick daf daan wax ni sama bés bi nag tey dafa alaa daw me waaye sunu bés bii tey dafa alaa daw me kan lañ ci àndal sama doomu ndey sama xarit muy Paala Jóob alaaji ma jama jóobay baayam kookoo bokk ak Boston di koo xamante ni yaakaar naa ni bis boo ko dëppee sa micro ngeen waxtaan ci wàllu lamb da nga dégg dëgg ak ku mu àndal sama doom sama xarit borom daan faal kooku mooy Serigne Bay mu Seydi El Hadji Malick mu Seydi Aboubacar Si damaa wax ni bés bi bés la boo xamante ni euh, euh, euh, bés dana xam ni tey dana mel ni ba ngóor jaaye mbaam ma ni bokk nopp yu bokku ya tey dañuy boole bopp yaag tànk yaag yéel yaag yëpp ànd ak moom dem esat acca jërëjëf maa ngi nuyu mbokku internet te téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Lutte TV di am contentement bu baax ci daje bi ma daje ak yéen ñu war a waxtaane bis bi nga xamante ne moom la ñuy dëgmal muy bis boo xamante ne mën naa ne bisu presse bi la waaye nag bisu communicateurs yi la waaye bisu famille làmb la kan lañ ci boole jam tëri kan lay dajeel xale bi nga xamante ne mooy le nouveau champion d'Afrique di nag euh, général bu Malika mu nekk bis boo xamante mën naa ni dafa ah, du ma wax à daw dawme mais dafa à la mu nekk bis boo xamante ni kenn mënatul wax histoire làmb te tuddoo ñaari xale yooyu waaye mu nekk bis boo xam ne nag nee naa presse bi dañ ci am wàllu rëy rëy moo tax euh, ki nga xam ne mooy bës jël dogal ni képp koo xamante ne jigéen nga bokk ci presse bi jour boobu dinaa la décorer. lan li ma leen di wax si moom. mooy xale bi nga xamante ni moom moo ñëw ci làmb daal nag innové ñëw fekk làmb di soox ci wàllu média mu indi téléphone ànd ak équipe am ñu naan kii lu muy def nii mu dem ba luyee am néeg ñu naan kii lu muy def mu dem ba indi ay studio tey nag mu yor télé bi nga xamante ni képp ku fa ñëw xam ne liggéey rek moom moo wóor kon bu ñu ko tuddee làmb tudd ko bis bu mel nii du bis boo xamante ni dafa hasard loolu moo tax nag xale yëpp ñëw communicateurs yi ñoom mboog ñoom ñëpp ànd ñëw ëmb ko war a jëm ak moom ca arène nationale la ca des nag foofa lañ koy waxtaane di ci woo Sénégal gépp jërë ngeen jëf di leen di ziar baax sama gars yi di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla bis bi nii yàlla ci yàlla may réussite totale ki ñu tuddee bis bi macha allah bis du tuuti boroom lay tollool tuddee nañ ko jàmbar tuddee nañ ko ku am jom tuddee nañ ko xale boo xam ni mën naa ne dafa ñëw ci làmb ci avec les mains vides mhm. mais ànd ak équipe boo xam ne macha allah góor gu baax goo gis muy dem mhm. ay jëmm yu tedd ñu nekk ci wetam di ko jàppale. Mhm. su ma waxee loolu mën naa tudd génération bi nga xam ni moo ànd ak Ibrahima Faye Beuz bu ma ci tuddee directeur rek lamin tudd naa ñu gis ñëpp ñuy équipe boo xam ne équipe bu dynamique lañ équipe bu am jom xale yoo xam ne dañuy teel a xëy di guddee wàcc te jii peccum liir bu neexee ndeyjaa jàpp ca mbagg ya Beuz dëgg la am na compétence waaye yàlla da ko booleeg ñoo xam ni macha allah ay xale yu sérieux lañ xale yu gëm seen bopp xale yu nangoo liggéey loolu moo tax tey ji affaire bi nii rek la mën a demee ñu di ko ñaanal yàlla nag bisam bi yàlla na ko jig ci barke yonent bi sul changé ma loolu mu gën a impressionné si moom quoi nit ku baax la vraiment lépp qualité boo mënti wax ci moom am na lu des dañ euh, pour man delloo njukkal la rek parce que Ibrahima nit la boo xamante ne pour làmb la te ñun ñëpp ay nitu làmb la tey bu ñu demee ba nit ñi xam ñu aussi tamit à travers si bi moom moo tax. que dafa am lu mu def ci làmb dafa ñëw yokku làmb dundeewul làmb dafa ñëw di dundal làmb tey bëri na ñoo xam ne dañuy jéem ci moom surtout man boo xoolee moom depuis téléphone ba léegi tey lépp luy jëmal làmb kanam rek ci loolu léegi nag boo xoolee ki ko tëggal ki ki ko tuddee bis bi dafa ràññee liggéey bi nga xam ne moom mi ngi def ci làmb. ndeysaan am lu mu wax bu marqué ma relation bu ma am ak Ibrahima dafa ne moom moom première fois bu njëkkee ñëw écurie Fass di seetaan entraînement dama ko dàq parce que je le voyais trop jeune pour assister suñuy entraînement ma ne ko eh demal ñibbi et après ndekete moom bëgg-bëgg la ci moom comme ni ñu ko bëggee terewul bu fay nekk da doon laqatu na ne ci garab yi di seetaan ak ba ni mu amee relation ak ñun ñëpp commencé ko ci ñoom Balla Diouf ñoom bokk génération ñoom Tafa Gueye numéro 2 ñoom Ousa tu vois ñoom Papa Sow ñoom Gris Bordeaux demoon na ba ubbi site boo xamante ba conseillé woon écurie Fass dañu war ubbi benn site boo xamante ne écurie Fass moo koy moom autant après nag ci la ma idée wu gën a xóotal yëf yi delluwaat jàngi dara ñëw vacances dellu ñëw vacances dellu mujj nag quand même bi mu jeexalee ses études mu xalaat ne làmb ji daal mu ci dugalee def toucham dina ci indi benn euh, valeur ajoutée boo xamante ne làmb dina ci bénéfice wu te moom aussi dina nekk le premier nit koo xamante ne moo fi installé pay-per-view mais loolu tamit man nag moom ñoo ko defandoo alhamdulilah rabbi alamin jërëjëf El Amine maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi ak internet yu Eric Favre TV ak Lutte TV ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare waaw comme ni ko yonent bi waxee rek kilifa kenn du ko sant dañ koy seedeel te nag ki xam moo ko war a def kon yaakaar naa ne su ma waxee ci bés war naa mën a wax ci moom parce que xam naa ci moom lu bëree baree baree baree bare mu nit ku baax nit ku oyof nit koo xamante ni dara rëyul ci moom dara feesul ci bëtam xamante bu yàgg depuis presque 2007 2008 yooyu noonu lañ xamante woon ba léegi vraiment ba léegi changement amul te nag bu ñu ko tuddee drapeau dañoo delloo mbàtt ca ndaala ndax comme ni ma ko waxoon keroog rek ba sens la pour waa làmb sens la pour waa làmb parce que lépp loo xamante ni mën na yokk làmb rek jàpp naa ne te gëm naa ne te mooy li am ni mu ngi ci xelu buzz kon chance la pour waa làmbu chance la aussi pour ñi nga xamante ni ñu ngi liggéey ak moom parce que lu mu am yéene na leen ko ah tegul kenn bët lu mu am bokk na ko ak ñun vraiment nit la daal koo xamante ni ku baax la et puis ku am ay waajur yu baax la loolu lu ñuy wax ñun lu ñu xamul luñ ko wax koo am ay waajur yu baax la depuis ñuy fréquenté fii di fi liggéey ba léegi da nga gis ajuma bu fi ñëwoon ajuma lii bu tombé woon ak ajuma kër gi day fees dell ñu ci bëree bëri fii la ñuy añsee bu ñu jógee jumaa loolu nag mbaax la et puis mën a joxe la loolu nag doon na ko ci ay waajuram yu ñaan yàlla drapeau bi ko mu yàgg nekk ay édition yu bëree bare bëri gis nga dafa affaire bi da koo jël à la légère parce que jàppewu ko dara réy na nag ci moom parce que promoteur bi am na reconnaissance su tuddee ko làmb waaye taxul mu jël ko maanaam yëkkati ci ay mbagam jàpp ni tey benn amateur rek bu dem seetaani général Malika jam téere rek waaw mooy loolu. loolu moom yaakaar naa mu ngi bëgg mu ngi bëgg booy ci nopp nit ñi <coughs> fii lañ commencé woon fii fii ci salle bi nii avant loolu dafa nekkoon Canada woo ma téléphone wax ma affaire euh, li TV bi boobu ci site web bi sax lañ ko doon concentré di bind ay article dem ba benn moment man maa ko doon poussé ci jënd caméra jënd caméra caméra bi bi demee fu lëndëm sax boo xoolee. boo duggoon li TV di nga gis ay interview Quench yoo xamante ni dafa lëndëm lëndëm xam parce que xamuñu ni yokkee lumière caméra bi mm-hmm. ñu dem ba benn moment ñu nekk fii ci néeg bi xale jigéen yi mm-hmm. boobu garage euh, éco kii woon oto mm-hmm. ñu nekk fa ba benn instant ñu jóge fii dem Demba Diop ah Pabouba jóge Demba Diop dem Liberté 6 taqale xam nga yor ay caméra yoo xamante ne kenn xamul caméra lan la caméra yi ngénte la xamu caméra mariage xamu camera yi anniversaire nekk ci di góor góor di góor góorgóorlu jóge Liberté 6 ñëwaat fii ah jóge fii macha allah dem zone de captage ñu ngi ñaan yàlla nag jóge fii dem jëm ñaajo ndax jëm ñaajo moo gën a yaatoo mais alors Buzz. waaw Elamine. mais naka mu. sa eh, c'est mon frère Lamine. mais mais monde de la lutte wis nañ la ah. waaw macha allah eh, samay frère lañu boo xoolee tey sama famille benn nit a fi teew muy El Hadj Touré. kon eh, monde lamb mooy sama famille. lool ça veut dire beaucoup de choses. parce que tey waxu dëgg yàlla waxuma ko kenn samay mbokk. sama beneen famille laa wax muy monde làmb. ah di kontaan ci ñi teew ñëpp. Mhm. CNG teew na fi. Euh, monde lamb teew na fi ñi nga xamante ne tey ay mbër lañu ñi nga xamante ne tey ay promoteur lañu ñi nga xamante ne samay xarit lañu dong wax dëgg yàlla am naa mbégte lool macha allah. ñu xaarandi ci biir. waaw ci kanam incha allah. l'avenir de la lutte sénégalaise et va être florissante dans les années à venir. Et euh, voilà, fier d'être ici aujourd'hui avec vous tous. Et aujourd'hui, comment vous trouvez l'ambiance au stade pour le drapeau d'Ibrahim Faïbeuz ben, Je trouve euh, l'ambiance fidèle à ce qu'est la lutte sénégalaise, c'est-à-dire avec un public euh, très chaleureux, très motivé, très passionné et beaucoup, de, beaucoup Et voilà, c'est une super j'adore. Ibrahim accompagné par Eric. Oui, Elamine. Euh, toujours un plaisir, non seulement accompagné d'Éric Favre, mais accompagné aussi de tous mes frères. Euh, franchement, c'est un honneur, un grand plaisir d'être euh, ici à l'Arène nationale, qui est un terrain qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. Et on y trouve notre famille. Euh, J'ai notre seconde famille, mais avec laquelle on passe même plus de temps qu'avec les personnes à la maison. Et c'est toujours un honneur euh, d'être là, en tant que parrain parce que c'est notre sport national qu'on aime, qu'on chérit tant et qu'on a, beaucoup fait pour son développement au niveau local mais aussi au niveau international. Donc aujourd'hui, être le parrain d'honneur de cette journée nous fait, rend vraiment plaisir et nous booste et nous pousse à encore redoubler d'efforts pour aller encore innover encore un peu plus pour le développement de la lutte sénégalaise. novembre 2024 ici à l'arène nationale c'est le drapeau de la jeunesse pourquoi le drapeau de la jeunesse le parrain de cet événement Ibrahima Faye Beuz est un jeune très ambitieux un jeune très intègre un jeune travailleur qui a révolutionné la lutte sénégalaise de par son talent qui a révolutionné la lutte sénégalaise qui a été précurseur du pay ici au Sénégal raison pour laquelle aujourd'hui il est honoré par le monde de la lutte La lutte qui est sa passion, il est honoré par le monde de ce sport roi ici au Sénégal, notamment par le promoteur Gender Production. Dans le compte un choc débutant, un très grand combat entre deux poids lourds de la lutte sénégalaise. Ici, à l'arène nationale, dans un stade chaud bouillant, on voit que les supporters sont venus en masse, on voit que les amateurs sont venus en masse pour assister à ce grand combat drapeau Ibrahima Faye Beuz en même temps mais aussi qui est son ami ici à l'arène nationale ainsi que ses, tous ses collaborateurs de Eric Faye et de les dangers, le combat de tous les dangers, le choc des titans entre Général Malika et Diam Terry ici à l'arène nationale ce dimanche 3 novembre dans un combat vraiment, vraiment choc entre ces deux poids lourds, deux champions de la lutte sénégalaise, Général Malika et Jam Terry. Les deux lutteurs, balancement des bras entre Général Malika et Jam Terry, ici à l'arène nationale. Il faut rappeler que c'est le drapeau Ibrahim Faye Buzz, Général Malika et Jam Terry. Général Malika qui est un champion de la lutte sénégalaise, un champion de la lutte simple. Jam Terry aussi qui reste un très grand champion de la lutte sénégalaise, Diam Terry, surnommé l'Espadon. Ce poisson avec un bec très long, Général Malika qui incarne le général, le leadership. Général Malika qui incarne vraiment le bravoure aujourd'hui face à Diam Terry dans un combat athlétique très attendu par les amateurs de la lutte sénégalaise. Balancement des bras et observation des deux côtés. Observation des deux lutteurs, observation des deux champions. Il se respecte. Général Malika qui met en avant son pied gauche, tout comme Kamteri, son adversaire, qui met en avant son pied gauche. Les deux lutteurs se respectent. Round d'observation, balancement des bras, il commence. Ah oui, l'arbitre qui parle aux deux lutteurs, Général Malika et Jamteri. Général Malika, est-ce qu'ils vont déclencher la bagarre Eh oui, Jamteri euh, qui lance déjà un jab, direct gauche. Général qui oui, euh, balancement des bras. toujours des deux lutteurs entre Général Malika et Jam Terry. Et eh oui, Général qui déclenche encore une fois avec un direct gauche. Balancement des bras toujours entre ces deux lutteurs, ces deux champions de la lutte sénégalaise. Je rappelle que c'est le drapeau Ibrahim Faybuzz, le précurseur du PPV. Jam Terry qui lance encore crochet gauche, droite. Et eh oui, la bagarre entre ces deux lutteurs, Jam Terry et Général Malika. Ah oui, et le stade chaud bouillant Diamtéry Général Malika la bagarre est-ce qu'il y aura un chaos gauche enchaînement de coups Général Malika Diamtéry oh quel combat aïe Diamtéry Diamtéry l'a touché Général a trébuché encore une fois la bagarre la bagarre il continue avec la bagarre la bagarre oh la bagarre entre Général Malika et Diamtéry c'est exceptionnel ce combat c'est magnifique ce combat c'est incroyable ce combat c'est incroyable Ah oui, bataille de force maintenant. Après la bagarre, c'est la bataille de force entre Général Malika et Jamteri. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Ils vont maintenant s'en aller à la lutte pure. Général, qui bat Jamteri alhamdulilah. Momo sant naa la gërëm naa la. def nga si man lu bëri barke alxuraan sant naa ñëpp ñëpp ma yéene ndam defalu ma leen lu tax ñu yéene ma mais maa ngi sant ñëpp général combat bi décision bëree ko nag xale laa dañ maa yónni yàqamti ma gars yi dañoo sonn lu ne la ñuy daj ci man te defalu ma leen dara toog naa fi am ma dafa ma dara mais sama booyee dañ lay xaalis di ma jox xool ma indi tey moomoo lii ku yaafus du ko indi lii ku ragal du indi kon nag sant naa ñëpp gërëm ñëpp sama mbokk yi. waaw yow dañ ciy waxtaan. Ah, ah. dañ ciy waxtaan mais merci. Diagne Faye. moom confiance ànd ak man tey dama xat trop mais confiance management confiance la te booy bi daf ma yàgg a bëgg. eh lamb la wuyu fee lamb la gi la yow gi gi gi la maa lay jégalu baay. yàlla na ji ko amiin baay maa ngi lay ci sa rakk la. ma gaar dëgg la. lamb ñu far jàmm ci yow baay. plus fort. Général a été plus puissant. Général a été plus constant. Raison pour laquelle il a enregistré une très belle victoire face à Jamteri. Jamteri n'a pas démérité. Avec une bagarre très rude, ces deux lutteurs, ces deux champions se sont donnés à fond. Avec une bagarre très rude, ces deux lutteurs ont montré leur bravoure ici à l'arène nationale. Mais le maire a gagné. Et Jamteri n'a pas démérité. Général est un très grand champion. Général Malika, il faut rappeler qu'il y a deux ans, il a remporté le titre de meilleur lutteur de la lutte simple. Général, il faut rappeler que c'est un champion de la lutte simple. Il a entamé le combat de par la bagarre. Il l'a terminé de par la lutte. La lutte pure, aujourd'hui, qui a favorisé Général Malika face à Jamteri. Une très belle victoire pour le drapeau Ibrahim Faybez. Une très belle victoire pour le drapeau du jeune précurseur du pay per au Sénégal. précurseur dans la lutte qui a révolutionné la lutte sénégalaise avec le pay Aujourd'hui même, il est dans le football. C'est un jeune, il faut l'encourager. C'est un jeune, il faut l'accompagner. C'est un jeune, il faut vraiment l'encourager pour ses projets futurs. C'est ça la lutte sénégalaise. C'est ça le sport. Le sport, c'est d'abord le fair play. Le sport, c'est d'abord la générosité. Le sport, c'est d'abord l'esprit sain dans un corps sain. Pour pratiquer le sport, il faut avoir un bon mindset. Et ces lutteurs ont un bon mindset. Ils l'ont montré par le geste de fair play entre Général Malika et Djem Terry. Bravo à Général, du courage à Terry.